ñeen ñi seetaan sama chaîne YouTube ñu ngi leen di nuyu su nekk sa tur sant di leen aussi wax ne ñi waajal nii def dernière vidéo pour fin bi mu jëm si code de la route bi vidéo yi nag nekk na un ba ay dix je crois waaye si playlist laa fa def toppalante wuñu donc yëpp dafa nekk sa sama am na yeneen vidéo yu si nekk yi nga xam ne nii wàllu business la yi nga xam ne nii wàllu investissement la yi nga xam ne nii uh, voyage la yi nga xam ne ay togg la donc yi nga xam ne ay sikar la uh, ay jàngale waxtaan sëriñ si Sëriñ Tuuba waaw waxtaan si yoonu njub donc vidéo yi dafa bëri ay diversité diversité léegi vidéo bi may mujjee def ba tax tey ji dafa tombeek euh, ñu ngi ci fin d'année bi at bi di waaj a jeex donc mooy profiter di def vidéo yi nga xam ne moo gën a intéressé mooy lu jëm ci wàllu caxu tali bi nit ñi am ci tamit euh, engouement gis ci njëriñ di ci di ci jima ci ñaar di ci di ci kontaan donc moo tax ma koy tëjee ak vidéo boobu. abonné partager les vidéos euh, nit ñi gën ko xam nit ñi gën a seetaan nit ñi gën a mën a jëriñu ndax jubluwuñ ci lu dul euh, dimbali ñi nga xam ne nii bu ñu gisee signaux yi peut-être duñ ko mën a xam lu muy tekki ñu mën ko def ci wolof te seetaan xool nañ ne aussi nit ñi intéressé na leen trop looloo tax euh, ñu koy tëj ak vidéo bii nga xam ne mi ngi jëm ci wàllu boo xoolee fii dinga ko di nga di nga ko gis ci suuf policier euh, feu rouge wala feu ak euh, panneau de signalisation yi ban moo ci am priorité boo xoolee parce que tey jii bu fekkee danga ñëw fekk policier ci feu rouge est-ce que da nga war a suivre feu rouge bi wala da nga war a suivre policier bi. loolu laay expliquer ci vidéo bi muy dernière vidéo bi nga xam ne nii moom laay def ci caxu tali bi ci at bi léegi leneen li ci war a topp mooy euh, ak policier bu taxawee ci tali bi signe yu muy def lan lay tekki donc loolu laa lan lay def ci vidéo yi nii di leen ne abonné partager leen ñaanal aussi at bu jàmm at bu jeex si jàmm at boo xam ne nii ñun ñëpp ñu fekkee déwén fekkee ko 2021 feebar bii ñuy dund mu jeex ku si nekk delluwaat say activité loolu laa leen di ñaanal yéen it leen ñaanal aussi ngeen jot seen permis ñi ko am di jàng si video yi aussi mu jëriñ leen ñu ko amul di si jàng ñu yàlla dogal ñu am ko leen wax tamit ñu ni kontaan nañ at bi malgré am na ay difficulté mais am na aussi positif kon. waaw comme ni ma ko waxee woon rek euh, lii laa bëggoon expliquer si caxu tali bi muy dernière leçon si deux mille vingt et un bi léegi moo composé code de la route policier bi des fois mu nekk si feu rouge yi feu yi des fois ñu nekk si ab panneau yi mooy signalisation yi des fois mu nekk si ak règle léegi yi nga xam ne nii euh, moom mooy accompagner ak panneau yeeg wala zone bi nga nekk même boo gisul panneau bi nga nekk benn zone di nga xam ne euh, ñaata nga war a daw par kilomètre par heure yu demee noonu donc nii mu nga xam ni noonu lañ ko teglee day mel dañ leen teg si podium boo xoolee policier bi moom saa yu nekkee si fa moom saa yu nekkee si croisement saa yu nekkee si tali bi moom moo am priorité moom li mu wax moom la nit ñi war a suivre donc euh, foofu moom moom moom moo jiitu bu xasee nekk si tali bi feu bi dootul compter stop bi dootul compter réglement bi dootul compter moom mooy joxe règlement yi ndax moom moom moom moo jiitu beneen bi si topp moom mooy feu bu fekkee feu bi dafa nekk te policier bi nekk fa am stop feu bi nga war a suivre ndax moom moo jiitu panneau yi bu dee stop bi tamit noonu la demee ba nga xam ne da ñëw si réglement auto de euh, code de la route bi caxu tali bi donc lii dafa jar a xam ndax boo ñëwee si tali fekk fu policier waroo jàll policier yi policier bi lu mu war a def lu mu def lu mu digle moom nga war a def léegi nag su ko defee damay wax expliquer aussi policier yi seen taxawaay lan lay tekki duñu taxaw rek croiser seen bras parce que bu nekkee si kii bi rek am na yenn kii ñuy def yoo xam ne ku ñëw jàkkaarloog ñoom di nga xam li mu bëgg a wax loolu dafa jara xam léegi maa ngi ñëw dinaa ñëw aussi ci ambulance yi mooy voiture yi nga xam ne ni ñoom ñoo priorité léegi damay ñëw commencé ko ci policier yi taxawaay dafa am mu taxaw yëkkati loxoom ci kaw policier bu taxawee yëkkati loxoom ci kaw képp ki nga xam ne dafa koy utiliser tali bi dafa war a taxaw maanaam lii moom mooy stop si langage u policier si langage u bu taxawee yëkkati loxoom si kaw ñi jëm si ñi jëm si kanamam ñi jëm si ginnaawam ñi nekk si côté gauche droite ñëpp a war a taxaw loo ko lii langage u la maanaam stop su fekkee policier bi dafa taxaw si diggu tali bi tàllal benn loxo bi jëmale ko si horizon bi bu tàllalee benn loxo bi ak bu tàllalee ñaari loxo yi ñaar yi ñoo yam li ñuy signifier lan lay signifier mi ngi signifier que ne ñi nga xam ne dañoo nekk ci ginnaawam comme oto bu gris bi ak ñi nga xam ne dañuy ñëw si kanamam si biiram jàkkaarlook biiram dañoo war a taxaw maanaam ñi nga xam ne nag ñooy ñëw si wetam si côté wet gi mooy fii pour arme bi nekkee walla ñi nga xam ne ñoo nekk si beneen wet gi si catu baaraam yi fa ñu jeexee ñooñu ñoom ñoo war a jàll. maanaam lii boo ko gisee bu fekkee da policier bi dalaa laa wan ginnaaw da ngaa war a taxaw bu dee policier bi da laa wan kanam da ngaa war a taxaw bu fekkee nag policier bi wet la la wan maanaam si côté càmmañ wala si côté ndajoor da ngaa war a dem bu fekkee aussi da la fekkoon si intersection bi nga jóge si ginnaawam wala si kiiwam da nga war a gaawantu jóge si intersection bi maanaam da nga war a gaawantu dem parce que moom ñi nga xam ne ñi ngi ñëw la yow lay lay lay kii mais yow bu la fekkee juste mu nekk fekk la foofu da nga war a dégager wu war a juge foofu complètement pour li muy tere mun ko mu mun ko ñu mun ko appliquer donc beneen bi si topp mooy policier bu taxaw yor làmp maa yorul làmp sax mais bu taxawee nii ba pare di wëndeel loxo bi maanaam bras bi day mel ni kuy def au revoir di ko yëngal ba pare gis nga benn loxo bi da koy jublu fenn fi ñu koy jublu maanaam foofu la oto yi bëgg a jaar léegi nag bu policier di defee di yor bu dee lampe la yor maa mu yor loxoom naan la nii maanaam dalay lay indiqué ne sûrement fii nga war a jaar wala da ngaa war a taxaw parce que souvent policiers yi bu ñu defee monter en garde di arrêter oto yi pour contrôle dañ leen di orienter fi ñu war a jaar pour taxaw léegi bu ñu la nii boo gisee policier mu taxaw di yor làmp di wëndeel wala mu yor làmp di war mu yor loxoom di ko di ko di ko joye di ko kii euh, def au revoir wala baay bye yow moom nga war a topp sûrement da lay arrêté wala mu ne la pour mu dévier la donc euh, lii jar naa xam signaux policiers yi beneen bi si topp maanaam policier bi li ma explique woon sànq rek la def mais bii daal mooy différence bi dafa yor dafa yor mbiib dafa yor ab ab euh, mbiib maanaam dafa yor sifflet léegi sifflet bi lan lay tekki sifflet bi day tekk pour nit ñi def attention si moom li muy wax pour nit ñi mën koo gis pour nit ñi mën a déglu bu fekkee dafa bëri dafa bëri bruit fi ngeen nekk tali circulation bu danse kii di wax fii bu yoree sifflet sifflet bi day permettre yow miy dawal nga mën a atta def attention si li muy wax kon mais bu taxawee nii tàllal bras ñaari ñaari ñaari ñaari loxoom yi horizontal rek day wane ne ñi nekk si ginnaawam ak ñi nekk si kanamam dañoo war a taxaw maanaam boo xoolee femme bi ne si ginnaawam la nekk mais si côté wet gi la jóge donc moom bu ko neexee mu jéggi mais bu fekkoon femme bi da koy traversé day traversé policier bi si côté wet gi du mun a dem dafa war a taxaw parce que amul droit dem mais si ginnaawam la nekk mais si wet gi la jóge maanaam oto yi nga xam ne dañoo jóge fi femme bi jóge aussi dañu war a jàll mais bu fekkee oto danga xam ne dañoo jóge si euh, digg ginnaawam wala si euh, biir bi bu ko traversé loolu du mën a nekk donc euh, loolu mooy lii mooy taxawaayu policier bi voilà lii lu may tekki boo xoolee dafa am ñoo xam ne nii am nañ droit wu arrêté circulation bi parce que dañuy jàng ñu jox leen ñu jox leen benn euh, table boo xam ne nii bu ñu groupe bu fekkee dañuy dañuy diriger ay nit yor groupe nit wala ñuy wala ñuy jàllale ay nit ay malaat wala ñuy jàllale ay ñoo xam ne nii dañu war a traverser tali bi bu ñu yoree tableau bi tableau bi boo gisee moom mooy tableau cadre bu ndaw bi moom mooy stop la tudd aussi pour ñoom panneau bi ñoom la ñoom ñi nga xam ne nii dañoo dañoo dañoo fa am ñu ko war a yor ñi nga xam ne ñu jiite ay nit di traverser ay tali wala ñu ñuy def tourisme ànd ak ay nit ñu bëri wala traverser tali ñoom am nañ droit arrêter oto yi pour nit ñi jàll. mais nag amuñu droit amende kenn amuñu droit di defaraat règlement inter règlement wu tali bi donc ñii boo leen gisee aussi da leen di jox respect aussi comme ñi ngay joxee respect policiers yi moo kii ñoo yam kii gis nga moom dafa taxaale benn capitaine benn brassard euh, brassard bi nag moo koy gën a permettre mu am na droit pour mun a arrêter circulation bi au cas où les policiers nekku fi ambulance ambulance nag moom lu am solo la moom lañuy wax ay véhicule à priorité ambulance ci la bokk police ci la bokk sapeur ci la bokk ñii bu ñu taalee seen feuille taal seen euh, kii bi euh, seen euh, nu mu tuddati sax seen son yooyu noonu wen wen wen buñ ko taalee yow bu la fekkee si tali bi ñii danga leen war a may ñu jàll bu doon dangaa taxaw si fa feu bi rouge ñii di ñëw dangaa war puus ba ñu jàll da ngay passé feu bi ñii ñëw si fa bi aussi dañ war a taxaw ndax ñii ñoo am priorité mu doon policier mu doon pompier mu doon ambulance ñii saa yoo déggee seen làmp yi saa yoo gisee seen làmp yi di tàkk dégg seen son bi di ñëw da nga loo ne ñoom ñoo am priorité mais ñaar am na bu fekkee dañoo nekk ci oto bi te taal taal làmp yi kese te taal ñu seen kii bi son bi mun nga leen bañ a jàll may ñu jàll parce que dañuy circuler comme ñëpp mais bu fekkee dañoo taal seen làmp yi taalaale seen son bi ñooñu da leen war a may ñu jàll day mel ni gis nga comme circulation bi nii niñ ko photo kii nii boo xoolee circulation di nga ko photo ambulance la taal na ay làmpam mais mayuñu ko mu jàll parce que lan parce que taalul ay son pour wane na dafa nekk en dafa nekk euh, en urgence donc mun na dawal comme ñëpp ni ñuy dawalee mais au cas mu taaloon lampe yi taal kii même lampe yi tàkk na mais taalul kii même bu ko taalee rek donc moom moo am priorité boo nekkee si feu da nga ko war a may mu boo nekkee si stop da nga ko war a may mu jàll war ngaa def tout ba moom mu jàll parce que moom mooy urgence bu fekkee da nga ko bloqué moom mu mu nekk ambulance wala mu nekk populaire wala mu nekk euh, policier mun na ngeen nga si am amende donc loolu mooy li nga xam ne nii tey jii euh, moom laa leen indiloon di wax ne vidéo yaa ngi nii ñu ngi si ay playlist numéroté naa leen mais nekk ñu ordre bu normal mais ku si nekk euh, di nga am loo si jëriñ ndax dinaa si jàngal yi nga xam ne nii moom la nit ñi di am jafe-jafe ñu ko gisee dañu xam nuñ koy tekkee wala duñ ko comprendre ku si am nag ay question looy laaj mun nga ma poser question comme ni ma ko waxee rek si groupe whatsapp bi wala nga envoyé message si messenger bi mën naa la tontu si limo ma mun a expliquer si wàllu caxu tali bi di leen wax ne profité leen si fin d'année bi yàlla defal ñu fekkee ko ci jàmm 2021 bi am ci ay xéewal mbir yi changé feebar bi jóge fi kon boog euh, ba beneen yoon bon chance à vous